Sa Thiès bëri ak Siteu am ci moom ndam lu leer te Sa Thiès rakki Balla la te diggante Balla Gaye ak Siteu leerut ci Balla Gaye ci Balla Gaye la ko daloon ci Boy Niang lu ko gën a metti mën na koo dal sax far ci Siteu mais ba wax Balla Gaye 2 su ma doon moom la walla may ay bokkam comme ni ma ko mën a misaale euh, du laal sita moom Balla Gaye 2 waaw du laal digganteem ak Siteu mais euh, Serigne Mara fi ñuy commencé mooy dañoo gis ne Balla Gaye 2 ñu ngi koy doxal combat ak Siteu combat boobu te gis nañ ne Balla Gaye 2 mi waroon bëri ak Eumeu seen naka nga gisee combat boobu bu ko fekkee taxaw na. waaw kay tubaarkàlla sëñ général maa ngi wax na nag Balla Gaye 2 su ma doon moom la wala may ay bokkam comme ni ma ko mën a misaale euh, du laal Siteu. moom Balla Gaye 2. waaw du laal digganteem ak Siteu. mais seen guy gi ah, daan maanaam Siteu guddi yi ñu toll xam nga nit dafa am diggante boo xamante ni bu fa tollee ay raw xaanam ak ay xuddaamam ak hmm. lépp loo xam ne da ko def ci yaramam ngir am ndam la muy sàkku day yomb te ubbi ko guddi yi toll nag Siteu daa ubbi ko ci côté boobu moom Siteu waa daa ubbi ko tey bu ma doon Balla Gaye danaa bàyyi programme boobu rek ndax yéenewuma ko lu jëm ci côté boobu ndax man damaa am cofeel sax ci moom bu ko defee digganteem ak Siteu lu ca mënoon a daw na ko daw. maanaam combat bu gënalul la. waaw déedéet ndax la ko waral mooy Sa Thiès. bëri na mhm. ak Siteu am ci moom ndam lu leer. Mhm. te Sa Thiès rakki Balla Gaye la. te diggante Balla Gaye ak Siteu leerut ci Balla Gaye leerut ci Balla Gaye la ko daloon ci Boy Niang. Mhm. lu ko gën a metti mën na koo dal sax far ci Siteu. mais boo waxee lu mel noonu te Balla Gaye ak champion bi mu doon. waaw ndax Balla Gaye Siteu mën na koo daan. waaw maanaam Siteu ku mënta daan ci guddi yu ñu toll ndax li nekk ci moom moo tax. bu fekkoon ne sax moom tulu nen maanaam entraînement tulu nen nii guddi yi mu toll ngir mu bëri nit am ci ndam day yomb bu ko defee nag loolu nag ko ko te guddi yi ñu toll Balla Gaye ci côté ay mbiri boppam ak ay wàllu ay àndoom ay xuddaamam ay rawxaanam ay ay yeneen ak yeneen ak yi am ci yaramam maanaam dafa dafa xaw a am ay jafe-jafe donte mi ngi ruus nag waaye su ma doon moom daal naa bàyyi ndam li Sa amoon ci kaw si Siteu te jéem a xool keneen keneen ku mën a xool nag mën na caa am ndam te sax mën naa ko caa ñaanal mu am ca ndam nag. dinaa la laajaat question ci loolu parce que question boo xam ne sénégalais yëpp ñu koy faral laaj mais balaa ma ñëw ci question bi ma bëgg a xam li nga wax nii foo ko teg da nga ko analyser wala ngay seet. déedéet loolu dama laa wax ne ci du ma analyser analyser xëy nañu ko moom mooy ñi nga xam ne làmb yi seen yitte man làmb du sama yitte waaye dañ ma koy seetloo ma di ko seet te seet gi may wax seet dama la wax ne seet gi may seet du ma war seet gi may seet lu ma won ñeme naa ko wax. te su ma ko waxee mën naa caa am ndam seet gi may seet bokk na ci seet yi nga xam ne mboolem ku di ab sëriñ te di ko jëf jëfandikoo tey génn sarax yi mu lay wax ne na nga ko génne bala nga maa seet soo ca seetee ba gis war-war na caa am ndax loolu mbirum saa borom la tey boo ko seetee ba gis te sarax yooyu am te suñu borom dana la suturaal dana la defal yërmaan dana la defal tawfeex ba doo am gàcce ca la moo tax man damay seet moo tax lépp lu ma wax am mbër wala ma wax ko doomu aadama na ko bàyyi xel ba xam ne loolu am la ci moom léeg-léeg nit seetloo ma ba noppi wëlbatiku waat woo ma ne ma sëñ bi man damaa jaaxle ndax li ma wax lépp day dëgg damaa xamul maanaam loolu nu mu mën a demee maanaam comme li nga ma leeral koy xamal ne ko mbirum xam-xam la saa borom mooy seet la ko neex mu def ko ci ab jaam dinaa ñëwaat ak yow ci loolu mais mbirum noob laa bëgg waxtaan ci tuuti rek pare day mu a gudd mm, waaw yan façon noob ngay pour ñu koy laajte waaw xam nga mbirum noob comme ni nga wax léegi ngir temps bi daa xat waaye mbirum noob dañ ci yor noob noob yu yéeme yu doy waar yoo xam ne tamit léegi bi ngay ñëw maa ngi koy wax am na ku may waxtaanal ci wàllu woowu mu di ma laaj li ngay liggéey ci wàllu nopp ni mu demee daa maa jaaxal ndax ku ne jël na sama alal ci lu mel noonu ne ma danaa la ko defal ñenn sax dañ ma wax ne ma 24 heures laa la koy defal ma ne ko nag man du ma la wax 24 heures 4 jours laa lay wax 4 jours yooyu bu jàppandee bu jotee ba jot ka ngay noob lu ngeen meroo meroo meroo dañ ko dégg ca bis ba te boo ko déggee dootul xalaat nga bañ a déggantee teeg moom te incha allahu rabbi soo ko noobee nga sori ko nga jeyee ko dootul mën a tee ànd ak geneen góor gu wuute ak yow te seenub ànd pikk ak peel moo indi tàqale tey lu mu gën a dem di gën a neex loolu mooy nopp gi ñuy nopp loolu nag ñu ngi koy nopp ci rab yi àll yi nga xam ne mboolem ko xam àll te xam dara da nga xam kundu diggante kundu gu góor ak gu jigéen gis nga nañu mel ca der yooyee nag ci la ñuy liggéey nopp gi bu ñu ko ci liggéey ba noppi tàqali ko mënta am te chaque jour cofeel di gën da yokk am na solo incha allah rabbi euh, fi ñu mooy lan ngay wax Balla Gaye waaw Balla Gaye li ma koy wax mooy na gën a góorgóorlu ci yaramam gën a góorgóorlu ci jëmmam gën a góorgóorlu tamit ci ay àndandoom gën a moytandiku ñi nga xam ne dañ ko jubuwut ndax la daaneel mbër yu mag ya yàqal leen moo ko daaneel te ak gut ci aas booba te soxlawaat na làmb kon moom ci jëm boppam faw mu jóg jii ma defaru defaru googu ne damay wax ne wóowuma ko sama bopp waaye tey su ma woon wala mu ñëw ci man ma defal ko loo xam ne suñu borom mën na koo dimbale ba xëy na combat bu mu amaat bu wuuteeg Siteu mën na ca am ndam incha allah. ndax mën a jëlaat roi des arènes. incha allah bu baax a baax. mën na ko jëlaat mën na koo jëlaat bu jógee ci boppam rek jëlaat ko. élection yi ñu jëm Bassirou Diomaye Faye moom la patriote yi jiital waaye am naa nag yaakaar bu baax a baax te gis naa war-war yu am ci biir yoo xam ne man mii sax duma neex moo tax kuy patriote ak foo mën a nekk nga bàyyi xel loolu te fas yéene bu fekkee sa gëm-gëm mi ngi ci yow nga fas yéene ko bañ a sensé benn yoon ba ay war-war di am waaye tiit naa ci lool bu ko defee. xam naa ne comme ni nga ko waxee xat-xat yi dangay bàyyi ba beneen yoon bu ko defee ñu man cee yaatal. Ah, incha allah bëggoon naa ñu continuer ci tuuti. pour gars gën a comprendre waaw nanu bàyyi ba beneen yoon rek ñu gën cee yaatal. ci Bassirou Diomaye Faye waaw Bassirou Diomaye Faye. am na solo tubaarkàlla. waaw incha allah. lan ngay tàggatoo. maa ngi tàggatoo nag ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ndax fi lan dëkk di ñaan suñu borom yi def ci àddina bi yépp jàmm ndax ci àddina bi la nekk di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi ak mboolem xalifa général boo xam ne yaa ngi ci réew mi di la ñaan yow mi bu baax di ñaan yëmbal vision dem ba doon télé yu mag ci darajay rasulullahi